assistance à une personne en danger parce que déli dafa am action ak ay délit d'omission maanaam yow Penda Badji yaa ngi solo ba rafet maquillage di càkkas di dem nga romb xale bu ñuy dóor yaa ngi dem sa yoon de xam nga defoo dara dóoroo yow waaye mun nañ la ci jàpp. càkkas bi nga wax daf may fàttali moo la. waaw <laughs> léegi léegi di ngay demee noonu di dem. waaye ba tey faa càkkas a goo ñibbi si de. defoo dóoroo kenn. man délai yi ma joxoon yëpp paase na. Euh, Mollah dafa war a ñëw moom Mollah dafa neex ñëw <laughs> aéroport libre na <laughs> moo gën xam nga. donc mm. yooyu noonu bu bu bu euh, boo deful dara. Mm-hmm. am na foo xam ne ñàkk def dara bi moom mooy faute bi. Mm-hmm. mooy infraction bi maanaam nga romb nit ku nekk en danger defoo dara. Mm-hmm. waxatuma laak nag kii moom euh, pire encore moom mu nekk fa naan day filmer. ñooñu ñëpp la war a jàpp hors d'état de nuire. alors euh, ci juste toujours Doro Gaye Mm-hmm. am na ñu naan am na liberté provisoire ñii ne amagu ko mais ndax war na ko war a mën a am ci cas figure bi. non euh, mën mën mën mën nañ ko libérer sax waxuma la liberté provisoire liberté définitive bul fàtte ne euh, moom euh, il ne pas du du procureur moo ko autosaisi dans son affaire il n'a pas de problème avec l'argent du contribuable du crime de sang du nangam nit moo ko porter plainte ci bor. waaw bu fayee bor bi du dem yoonam y a pas souci foofu. bu fayee fayagul nag. bu fay voilà bu fayul wala nga purger sa peine ba mu jeex sax te fayoo pour contraindre par corps mais bu fayee mais waxuma la liberté provisoire mais il peut avoir une liberté définitive. Mmh. apparemment je pense que ni ay mbokkam ñu ngi jóg pour mu fay. bu purgé boo nga ni boo purgé sa peine ba pare te fayoo. loolu mm, contrainte par corps lañ nga xamante ni ba tey dégguñ ni fay na li nga xamante ni moo di famille Ndiaga Diouf wala du benn. ok non c' est à dire euh, euh la responsabilité civile ba tey moom dafa war a dàmp famille boobu noonu. mën nañ ko def xam nga contrainte par corps nag sa particularité mooy ki nga yóbbu prison sur contrainte par corps yooyu yaa koy dundal. Hmm. waaw. boobaa ah xam nga prisonniers yële ñun ñoo leen di dundal mais yow yaa contraint nit ki pour mu fay la sa xaalisu bopp kon yow yaa koy dundal noonu la mais c'est possible ci képp koo xamante ne ameel la nit xaalis moo xam euh, bor la moo xam euh, réparation de projet préjudice maanaam ndàmpaay mais euh, bu na nekk rek à frais. Hmm. Hmm. Kaaw Ba buñ ci buñ ci dellusiwaatee. dañ ko teg loxo. Hmm. daan ko li nga xamante ni moom moo di ñetti weer mais ci yooyu la ñetti weer am na ñeneen ñu nga xamante ñoom nee nañ Bah Diakhaté tooñoon ñoom ñu ngi nekk ci déposer ay plainte ci kaw Bah Diakhaté hmm. ndax kon yoon day bàyyi ba mu génn après ñu entamé yeneen procédure wala ndax procédure yooyu dafay ñëw nii ci moment bi nga xamante mu ngi ci kaso parce gis nañu gis bi ko bi ko Ababacar dooree plainte woowoon nañ ko ba génne moom bu ko beneen procédure fekkee foofu noonu dañ koy génnewaat entendre ko donc buñ ko waree juger dañ koy génnewaat yóbbu tribinal bu ci jugement boobu noonu mu jëlee ci une peine supérieure day tëdd peine supérieure bi bu doon dafa dem ba génn purger trois mois am yëpp beneen procédure ñëw mu war a dem wuy jiwaat tribunal buñ ko fa daanee day delluwaat comme par exemple bu doon bu doon bu doon euh, procès bi dafa toog tegloo ci moom. mooy bénéfice parce que bu ñu la daanee fii 3 mois daan la fi 6 mois daal la fee 2 ans xam nga doo tëdd 2 ans ak 8 mois parce que peine yëpp boo leen dajalee li mu doon du loolu ngay tëdd bi gën a gudd rek ngay tëdd. Hmm. mais bu dee nag bii dafa dem nga purger peine bi bële soog a tam euh, procédure bu ñu la daalee da ngay demaat tamit. kon daal li doon gën a bénéfique ci moom. mooy yëpp dala euh, dalandoo benn yoon. Euh, léegi buñ paree ci bii nii. mu dem fekk Ababacar Mbuub bu demee buñ ko si daanaatee day delluwaat rek bu génneewaatee yemaat ci beneen ñu daanaat ko moo tax tooñ baaxul nag ku nekk tooñ na ko ci réew même su fekkee pour ay cas ñu Ababacar Mbuub ay diffamation rek la. ah euh, lu ko yóbbu fee. diffamation ah, waaw diffamation dañ ciy tëjee di. mais dama ni comme tëj nañ ko déjà pour diffamation. bu defaatee diffamation dañ ko war a bàyyi au contraire peine bi day gën a bëri loolooy récidive récidiviste récidive mooy tëj nañ la pour telle infraction nga génn defaat ko. double peine bi lañ lay jox parce que dañ jàpp ne lii ñu la yar boo génnoon war nga yaru nga génn delluwaat ci ku sàcc ñu tëj la trois mois nga génnaat sàccaat six mois. mais dañuy wax ni moom yooyu kàddu yooyu mu tënee woon yëpp loolu loi d'amnistie bi da ko couvrir. non xa bul fàtte ne loi d'amnistie bi na da gars yi demaat lii yi ci texte bi lam ne si ne porte pas atteinte aux droits des tiers si taxul ngay taxaw di saaga nit ñi bu dee yow acteur politique nga bu dee yow am nga une vision politique am des arguments da nga ko war a tenir. sans pour autant voilà bu dee cadre yu mu tenir da ko tenir avant li nga xam ne moom moo di amnistie bi avant amnistie bi amnistie bi da koy tenir en compte. amnistie bi nee la ça ne porte pas atteinte aux droits des tiers man nga saaga ma lu mu jot ak amnistie ak lu mu jot ak politique. Kaba Diakité jabaram ba woon Queen Biz xaw ma lan ak lan ak lan loolu bu la Kaba Diakité porté plainte loolu lu ci yoonu amnistie amnistie dañ la wax dans le cadre politique. mais yow ñu nga bàyyi politique bi fële di lijjanti jabaru jàmbur di xastee ka saaga loolu moom mooy politique déedéet ce n'est pas ça de l'engagement politique parce que bu lee rek wax ju ñaaw ak xaste c'est le métier le plus facile ku nekk mën na ko saagaate rek ku ne mën na ko dafay am nag lu lay téye muy éthique muy yar muy respecter sa bopp ba tax yenn yi doo ci dugg ak doomu jàmbur mais fu wax ñaaw am nga xotti tegal ko nit ki. kon tey jii soo nekkoon avocat am nooy def tey ji ba mu mun a ba mu mun a ba mu mun a mucc ci yooyu les plaintes nga xamante ne dama. non mu non mu bàyyi mu bàyyi tooñ. à yow nga nekkoon tey jàpp kaa bi bàyyi tooñ bàyyi wax ju ñaaw. non waxuma su génnee de. dama si jamono jum nekk. waaw jamono jum ak plainte yi nga xamante ni déjà mu ngi ci kaw. waaw no euh, amende honorable mu bañ génn delluwaat comme amende honorable na dem jéggalu Aboubacar Mbuub Aboubacar Mbuub rek tey problème ba xam naa Aboubacar Mbuub euh, donc amul lenn loo xamante ne tey jii nii euh, yokk na ko wala wàññi na ko mais nit taxaw ci nit di wax wax ju ñaaw ju ne ba pare nga yow taxaw naan ca mais assumer aussi la condamnation. d' accord alors ci li nga xamante ni dafa ñeel wàllub góor jigéen ci mim réew l'honorable député euh, Cheikh Bara Dolly dafa introduire ab loi euh, proposition de loi ni ki démb tey sàkku ci ay naataangoom ci assemblée nationale ñu voté ko. mu ñu daal dafa euh, Cheikh Abdou. Cheikh Abdou Bara Dolly donc mu ngi sàkku ci ñu ñu voté ko mu ñeel li nga xamante ni moom moo di borom ñaari tur yi dem ba jàpp ne ku ñu fi jàppati ci wàllu mu ne la war nañ la war a mën a teg daan lu toll ci ñaar fukki at fukki at wala boog fukki at ak rek criminalisation. Mhm. je suis d'accord avec l'honorable Cheikh Abdou Bara parce que dañ ko dañ ko déposé woon te kenn te kenn te gàddu woon euh, député Cheikh Abdou mhm. gis nga lépp luy criminaliser homosexualité. Mhm. non euh, euh, on on supporte. pousse jusqu'à ce que ñu am la. mooy modification ci alinéa 3 bu article 319 du code pénal Euh, euh, c'est-à-dire lépp luy gën a corser les par rapport ak euh, pratique LGBT on est d'accord parce que y am na ci yenn affaires yoo xamante ne on est intraitable là-dessus la question des valeurs du ñu seetaan dara du ko salfaañee ci réew mi alors donc vu ci contexte boobu noonu li nga xamante ne ñun dañ ko doon def ñële di bloquer léegi tey jii nii j'ai entendu Aminia ñi bi sax nee na tamit da kii encore félicitations Cheikh Abdou Bara Dolly na dem jusqu'au bout li ki jaaxaloon nit ci nag mooy Amy Ndiaye ñi dafa bokk ci groupe parlementaire benn bokk yaakaar te boobu le parlementaire lañ doon tuumal ni loi bi dañ koy indi à l'assemblée ñoom ñoo ko wala ko tuumal leen kon dans ce cas là quest a changé ak aussi ndax li Abdou Bara Dolly peut-être que ah. donc le refus ce n'était pas de principe c'était un pour euh, politique parce que moom bu ko bañoon démb tey mu ñëw andiwaat ko <laughs> c'est bizarre ça moom mi ko bañoon démb moom moo ko andi tey xaw ma nag quelle a été sa position mais en tout état de na ñu ne piège te dañoo bëgg xam wan Sénégalais ban position la ci dëgg-dëgg Pastef am parce li bokk na ci li nga xamante ne moom moo di non non non non non bi muy bi muy njëkk a am Pastef lu mu waxoon le président de Pastef Ousmane Sonko kenn dina laaj lan mooy position am sur ça. bi ñu wootee fii manifestation à la place de l'obélisque il était là-bas clair c'est-à-dire sa démarche est nullement ambiguë sur, sur la question ànd ak waa sàmm ànd sàmm jikko yi ci euh, loolu noonu donc kon la position. oui mais xam nga tout récemment ak ñëw ku mel ni Jean-Luc Mélenchon dafa remettre en cause. lu non non non ci en cause de mooy seen euh, ci kanamu Jean-Luc Mélenchon qu'est-ce que Ousmane Sonko a dit que duñu ko accepter. duñu ko nangul kenn suñuy principe de vie suñu réalité culturelle mais ne na mais ne woon a toujours été Sénégal mais l'a pas moo tax ma ne foofu noonu moom moo def erreur d'appréciation juste depuis moment bi nga xamante ne ñi ngi doon def euh, cette loi la sur euh, les LGBT parce que Ousmane ko approche bi muy jël da dégg mu naan la ku ku ku ku ku ku efféminé kuy dox di euh, dë dëngal loxo sax mën nañ laa attaquer non loolu du problème bi parce que mën nga efféminé te doo euh, góor jigéen xoolal les LGBT ay athlètes de haut niveau entraîné ba cere bu ñu la dóoree nga wàcc te fekk loolu lañ mm-hmm. donc il ne s'agit pas d'être efféminé il ne s'agit pas d'être un manqué parfois da ngay gis nit ku normal góore carrément par l'apparence alors que ci loolu la bokk nga gis jigéen bu jigéen a normal alors que lesbienne la donc l' affaire ce n' est pas lié à l' apparence or Ousmane Sonko moom ba mu doon wax ci apparence bi la doon wax ci apparence boobu noonu looloo taxoon mu signé avec réserve loolu moom moo euh, erreur d' boobu moo ko toppaat ba ci euh, bi muy wax ak euh, Jean-Luc parce que mi ngi ne l' expression góor jigéen donc tu am na tour kon am na ci suñ société effectivement taaliboon am na gars yi di solo di ñu tuddee góor jigéen simb yi am na benn kii bu ñuy wax góor jigéen mais est góor jigéen la. donc kon perception boobu noonu du loolu la ñu condamné ce sont des pratique culturelles qui ne sont pas bonnes nag baaxul de mais ay pratiques culturelles la parce que góor buy jigéen jigéen lu jigéen buy góor góor yàlla rëbb na la donc kon baaxul mais ce sont des pratiques culturelles loolu c'est toléré. c'est toléré. parce que ni mu waxee woon jour boobu moo tax ñu bëri jàpp ni Ousmane Sonko ba doon wax. démb ak position bu amoon tey déedéet ça n'a ça n'a pas varié du tout. delluwaatal. bu nga xamante ni dafa raay mbel yi yi fii. non pas varié moom moo di loi boobu. ça n'a pas varié delluwaatal ci benn émission. pour mettre ko devant les faits wala pour xam li nga xamante ñoom ñoo moo ci nekk seen appréciation. mu ngi doon mu ngi doon mu ngi doon mu ngi doon euh, wax ci cas boobu doonu mu ne parce que li muy bañ ba tax mu signé agresseur mooy da ngay gis ku euh, kuy wax damm loxo rek ñu ne la góor jigéen nga mën nañ la attaqué ci loolu noonu il a raison sur ce point loolu euh, bokkul dara ak góor jigéen bi nga xamante ne moom la ñuy demandé sa criminalisation du bokkul dara mais par contre pratique bi ànd sàmm jikko yi bind da ngay xam lan la ñu daan ko daan képp ku koy promouvoir cest a dire l'apologie daan képp ku koy financer daan lépp loo xamante ne ça va dans le sens de promouvoir ces pratiques-là donc kon la loi sur la question euh, est très très très euh, claire que ni nanguñ loolu léegi nag Ousmane Sonko nee na euh, lii da ngay comprendre la philosophie de ce qu'il dit mais Ousmane Sonko sa position euh, sur euh, LGBT xam nga ko keroog Jean-Luc ñëw. xam nga ko keroog ba muy taxaw ca ànd sàmm jikko yi yow sax xam nga ko. am Matar mu ngi topp